ginnaaw ba ñu leen nuyoo yéen suñuy mbokk internet ñu ngi woon fii ci marché HLM nag tey ñu fekk fi benn manifestation bu méttee métti diggante marchand ambulant yi ak takk der yi doon jàmmaarloo nag li waraloon seen problème moo di euh, maire HLM dafa jël seen place yi fas yéene koo jaay waa Sandaga ak waa Colobane nag jaay bi ñu leen koy jaay nag moo leen neexul ndax ñoom diggante 5 ans ba 6 ans ñoo ngi fii di daan seen doole tey ñu bëgg leen ko xañ jox leen ko keneen moo leen métti nag moo waral seen manifestation dañuy dem xool euh, ñenn ci ñoom nag lan la ñu wax man daal soxna si gaan man fi mu daal mënu ma mënutu ma laa wax ban àdduna la nekk quoi ba jan jamono la nekk parce que ñun marché bi dem ñi ay vingt cinq ans tout man mairie sax laa gën a yërëm waa naaj bi mairie yi lal nii est-ce yaay ñu toog fii corona bi ñëw ñu koy jaayante ndeysaan est ay yaay ay benn benn gars yi di ñëw di jënd si est-ce yaay ñu nekk fi du war a toog ay vingt cinq ans vingt ans est ay yaay ñii ay quinze ans mais suñu toogee tey ñëw ah, mairie HLM war da dawal yërmande wala bu fekkee état bi la itam ñu dawal yërmande yërmande bi mooy lan war ñoo nit ay nit di jógee Colobane wala Sandaga wala Petersen wala Centenaire ñëw ñu leen di jaay place yi ay 300000 imagine loolu xam nga ne loo rafetul ah loolu gars yi moo tax gars yi fu mu demee fa noonu quoi te xam nga nit ki tam nit la mën a doon bu fekkente ni doomu aadama nekk na ci benn millier. ba muy metti mu nekk fi ba suñ jon yàllaay tey essayant yi dëgg tey ñëw mu bëgg a demee nii day fipp loolu mooy carte gi gars yi dañ leen ñaan ngir yàlla ak jëmmi Serigne Touba état Sénégal essayant yi dëgg Macky Sall nañu dimbali ngir yàlla ak jëmmi Serigne Fallou lii mu teg ko botam essayant yi dëgg jàpp ñu ci lii parce que lii métti na trop événement ñëw nga war a liggéey essayant yi dëgg jënd say bagage war a jënd ak jaay di am loo suqur mu dem fa noonu xam nga ne ñaaw tey Thierno Ndoye moom moo ànd ak délégation bi nga xamante ni moo bëgg a représenté euh, maire bi fii parce que Pape Seck dafa feebar il en France dafa nekk foofu di faju léegi moom li mu li mu bëgg mënuñu ko dafa bëgg ñoo jaay place yi deux cent cinquante mille jële fi commerçant yi nga xam ne ñoo fiy jaay pendant cinq ans ou six ans jële leen ci seen i place leen indi fi ay nit ñoo xamante ni Petersen la ñuy jóge wala Sandaga ñëw dagg place yi ñu yëkkati ñoonu sur des prix yoo xamante ni dafa cher de de sorte que mënuñu ko dagg réew mi dafa nekk ci mbas Macky Sall mënul bëgg ne dañu war a fermer marché yi récemment dañu war a discipliner nit ñi tas leen pour duñu mën a dajaloo ci béréb yi léegi mu ne léegi dañuy dagg benn euh, sous forme de foire boo xam ne dañuy dajalewaat nit ñi mënoo bëgg lii ba pare bañ lële Macky Sall ñu ngi lay adressé ak première dame Marème Faye Sall lii duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg na Ndoye nag nekkul ci lu ay kàcc parce que nee na fii préfet moo ko signé te préfet nee na yëgu tinut préfet nag bu fekkee yaa ko signé nekkoo ci dëgg nekkoo ci yoon nekkoo ci dëgg nekkoo ci yoon ñun nag am nañ fi ñaar fukki at ak juróom di fi jaay sonn nañu dee nañu ndax ñun ñoo yaayi Marème fay Sall ñoo fi nekkal Macky Sall saagan nañ ñun ndey sax ndax Macky Sall nu ànd ak moom ànd ak président Amadou Ba ba gañeel ko ñu nar ñu toroxal pour lan ñun bañu ñoo fay mais ñeenti weer liggéeyuñu ñun dañ doon jël foire bi un million deux cent facture yaa ñu yor mais tey liggéey ñu amuñu lu ñu fayee ñu rëdd suñuy palaas nan ko jox ay nit sànni ñu ci àll ba te bis bu ne ñu fayee ku ñu juuti loolu fu mu tegu amuñu amuñu lu ñu fayee ñeenti junni yi ñu lay wax sax mënuñu ko. mënuñu ko liggéeyuñu ñi daan jënd suñuy bagages yi étranger yi amuñu fu ñu jaar. teer yi amuñu luñ leen fayee Macky yaa nu may dawlin may ñu ceeb kon nag may nu place dañuy liggéey ah sonn nañu dee nañu waa naaj bi sonn nañ képp ku ñëw nag ni leen may responsable naaj wi ànd ak waa mairie waxoo dëgg. kesk nga yor di ci nekk ñun la ñuy dàq ñooy dund ci mbalit mi ñooy dund ci taw bi duñu daw nag kuñ ko nar jox te boo ko asalem defoo loo ñu lu oyof ñu rayanteeg yow dawuñu sonn nañu dee nañu ma Sall nañu gestu Marème Faye sa yaay yi naaj wi sonn nañu lii rek la ñu fekkoon mbir marché HLM mu nekk jàmbaarloo bu méttee métti diggante marchand ambulant yi ak takk der yi problème bu rëy moo fi amoon ndax ñi nga xamante ne 5 ans ba 6 ans ñoo ngi fi di daan seen doole tey ñu naroon jël seeni i place jaay ko ñeneen lii rek moo leen métti moo tax ñoom ñu ne déet du ci daal ba ñu leen dégg ko suñu micro nag lii la ñu kaas ñoom ñëpp benn wax ji la ñu wax mooy nañ leen bàyyi ñu liggéey seen liggéey marché HLM la woon Sista Befa leen andiloon nag bi reportage